kii mooy Cheikh Mohamad Rafa yi ñu naan ko Cheikh Naar kee toog ci wetam moom mooy Mouhamadul Xazali ñu naan ko Kajali Ousseynou Diop moo toog ne topp ci moom ki ci topp lañu tuddee sama maam muy Papa Abdou di Papa Abdou Diop ka ca topp moom it di Ahmadou Diop fa tabarakallahu ki ci topp di Mouhamadou Mamoun di Mamour Diop kii toog di Ousmane Mbodj di suma rakk kii toog di Abdourahman moom it di suma rakk kii taxaw ci seen kanam moom it di bay bu ñu naan ko bu junior nii muy taxawee ci tabala yi ji moom it mbooloo mooy topp ci ginnaawam mu ngi nekk ci carrière am ñoom ñëpp yàlla nañu àgg kenn ku ci nekk tey ci groupe bëgg chef bu nga soqi ko ma ñëw nag ngir fay si bor loolu rek lay dugal ci présentation bi mm-hmm. bi ma fii njëkk a def émission yéen a nga Sacré Cœur mm-hmm. c'était en 1998 ca rajo ba ñu def ko man ak doyen Abdoulaye Lam Cheikh bu Mouhamad Bay bu yabal ma man ak Cheikh Daouda Sidibé mi ngi may déglu mhm. maa nga nekk pikin ca sama kër ndijaay ca néegam Bay Birane Diop ñu ñëw Walf def émission bi mhm. ñu defee émission bi mu am réussite producteur bi ma njëkk a contacté mhm. keroog ci émission boobu la jaar pour contacter ma ma génne sama premier cassette en 1998 ñu génne cassette ndoxum zam-zam en 1998 li daw suma yaram tey moo tax may wax. ñu ñëw 1999 ma génne lu ñuy wax tool bi. kaset mhm. yooyu man ak. xaaj Cheikh Khadim géey bu Touba ak Cheikh Pamor Gueye bu ba ak Cheikh Tidiane Ngom bu Saint-Louis ñu génne ay kaset yoo xamante ni moo gën a dox kasetu musiciens yi gën a mag ci réew mi Serigne Sidi Lamine Niass yàlla na ko yàlla yërëm defal ñu diine ak jamono booba ci rajo bi lañ koy def keroog ñu ngi ko fekkee muy préparé brouillon livre bi Cheikhou Chérifou Cheikhou Chérifou mm-hmm. en 1999 fin de la nuit ah. tey jii ma ñëw mm-hmm. Oustaz Assane jox ma lii cadeau mm-hmm. baatin la baatin dëgg rek mooy dëgg. dëgg mooy dëgg. mu recevoir ñu biroom nii ñu na ngeen gëm seen bopp na ngeen xam ni lii ngeen nekk mooy dëgg te lépp ci lii lay mujj. allahu akbar tey ñi ngi nekk ci fi mu toll nii ñu xàmmee jàngkat yi moom waxoon na ko bu yàgg. yàlla na ko fi jëf ji fekk ci. allahumma amiin loolu daal laa ubbee. Mhm. bu ñu newee ba ci kanam rek ñu waxtaan. incha allah. ayca gaa ñi dañuy ubbi waxtaan. Mhm. wala dañuy bàyyi mu yëngu tuuti ñu doog a dugg ci waxtaan nu ngeen ko bëggee rek ñu defee ko noonu. waaw ñoom dañu am hymne. Ah. hymne boo xam ne nii seen hymne kër la. waaw mm, yaakaar naa mënuñoo tàbbi ci waxtaan wi te tàbbalewuñu loolu. kon hymne bi foog mu dugg ba pare. moo moo jaadu. ah kon xam nga ayca kon ñu dem. <laughs> la ilaha illallah la ilaha